Mustafa santal dayob amul ku lay werante te ci Mustafa Cheikh Mustafa santal dayob cant yaa fi gën amul ku lay werante te ci Mustafa mbokki taalibe yi baa ngi nuyoo di wax asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu su fekkee lu ne wax rek asalaam. Cheikh Mouhamadou Moustapha. jëwriñ jii di Cheikh Mouhamadou Falilou. jëwriñ jii di Aminta Fall. tànk yi ko tax a jóg mooy. bis bii ñëpp bokk. bis bii ñëpp bokk. lu ñëpp bokk ku bokk moom ku nekk am nga ci wàll. nee na ka yitte woo wàllam nag. ka yitte woowul wàllam. ba jëlu ko. kooka moo xam. waaye sëriñ Falilu mii yitte woon wàllam wii. mooy lii ko tax a jug. siyaare ci ci bis bi bis bu tedd bii nga xam ni. lépp a ko bokk. lépp ko bokkit. Ah, nee na ñun murid yi. sunu xel yi nan ko tàllal. sunu xel yi nan ko tàllal. buñ ko wudd rek. buñ wudd sunu xel yi. nan bàyyi. nan bàyyi sunu xel yi. muy xalaat lu jëm xalaat lu jëm ci sëriñ bi. bokk na ci loolu. nee na bokk na ci loolu. kii toog kii toog. di Cheikh Mamadou Moustapha. ma ma ma ngi mi ngi ni daw ci biir wax ji muy wax. nee na mu jàppee. bari na koo xam ni. bari na koo xam ni. fa nga nekk fa nga te nekk ca kanam mbooloo ma. te nekk ca kanam mbooloo ma. doxinu mi tax na. wii tax na. nga doxe noone ca mbooloo ma. nga doxe noone nga doxe ca mbooloo moomee. nee na ku ñëw ba fekk ko fii mu toog. xool ko. nee na Cheikh Moustapha du tas sa yaakaar. waaye dalay lay bett. mënoo ñëpp leen bett. nee na. ma ko bëgg a mhm. nee na ku dox ba si faaw boo xoolee Cheikh Moustapha am lu la bett. ndax bu doon saa yi rek la. fa lay séenoo. fa mu séenoo. du la fa fekk mbàkke. waaye da xam ni. yëfi yëfi jàmbur nga yor rek. yor yëfi jàmbur nag. yor yëfi jàmbur woo. nee moo dal Cheikh Moustapha mi toog. nee na mbooloo mi fi nekk. nee na doonul ci ñoom dara. nee di leen womal rek. teg ci loxol kilifaam. yaa Ahmadu li Muhammad li Muhammadin yawmal qiyaam sant leen sunu waaji waay Cheikh Moustapha yaa neex a dal nga xel womat gar wi fi yëggu leen jébbal sa baay wa man nga gumbayee boo la fa yi tegel fanoo góor ak jigéen di jox ay càngaay ku la daw nga dab ku la fay nga fay lii te doonu fay mboolem jirim yeeg baay yaay seeni baay yaa ni teral yaa ni yaram dinu may dërëm yaa yaay jenn waay yaa yor teraangay mag ñi Bamba yoraale moo tax yilif nga ba jàll saalum jàll xaay يا غم ترى يا واكا يورك وابا يا يرسا قبوري في داب يم لمباي ومن جنار ومت ولف كنري رسول يا تيدر باب ولك نبي جاي يا مصطفى للمصطفى للمصطفى يوم القيامة رانجلين فؤي مداي مسكين يا داجوي شيخ بامبتي ومسكين ca rongo seen rongo yi yaa mat la xaay mag jàkkatul ndaw tiitatul réew mépp a bég ngir mos lu ka di mosal nga yaa bi sa baay yaa tee ñagub lislaam ñu sàqi ka yaa jéenu rëy yaa tee murit seen mbaar manaay yaa boole galli boole car yépp car antal ximaadili ahlina yaa am wilaay